très chers amis internautes de la Sen Série TV maa leen di nuyu leen remercier bu baax a baax si ni di àndee saa su ak sunu ay programme tey seen rubrique décortique dafa ñëwaat ci série Bété Bété épisode 15 dañu koy door ak Makhoudia ak Dieynaba ñoom nag gis nañ ni euh, seen couple euh, liñ si mën a jàngatee rek mooy euh, couple boo xam ni bu nar a yàgg lay doon waaye nag problème peut-être du fa am ndax li nga xam ni moo di communication ak sincérité la ñu jiital ndax tey ki nga xam ni moo di Dieynaba sincérité la wone ndax bu digganteem ak Jeynaba waaye maxu itam bu ko neexoon bañ lu métti Jeynaba tax du wax dara mu jàpp lépp ci biir xolam waaye defu ko a wax ci saasi ba tax nag communication boobu am ci seen diggante ak sincérité bi tax na seen meroo matul sax une minute ndax fi ñu taxaw fa la ñu juboo waatee nag dafa nekk loo xam ne yaakaar naa force la pour bépp couple ndax couple bu nekk yaakaar naa ku ci nekk da war di wax li nga xam ne moom moo la métti ku ci nekk wax li nga xam ne moom moo neex waaye nag ngeen bañ di juma caam nag moom euh, li ko Jeynaba euh, daal di dàq seen kër da koo métti trop ba tax na mu tëdd daal di sëngeem euh, ndax jàpp na ni Jeynaba waru ko woon def loolu ndax ay mbokk lañ kon sëy warul woon tax di leen di xalab bi mu ko waxee Pa Mayel gis nañ ne moom li mu bëgg nag mooy jël yëpp ci loxoom daal dem ci kër googu fexe ba daba caam ak alkaali daal di nekk ndax li ñuy jiiñ juma caam te def ko moom Mayel jàpp na ni moom dina ko def waaye juma caam mel na ni moom bëggul loolu yëpp ndax bëggul problème te yi nag li tamit papaam yëg ko bi Ndiaga Thiam ndax xam na ni bu ko yëgee du ko neex ndax Ndiaga Thiam bëggul woon sax muy dem ci kër googu jàll ci Marème Sall Marème Sall nag moom gis nañ ni lépp lu mu euh, mën euh, mi ngi koy def pour Dieynaba sonn ci kër gi pour Dieynaba mën naa ni nekk euh, mbindaanu kër gi liggéey liggéeyu kër gi ba tax na nag muy forcé nogay ngir mu dem seen dëkk kur ke kur loolu nogay moom bëggul dem ndax dafa bëggoon a xaar ba tabaski waaye mel na ni Marème Sall mënul dégg loolu ndax moom li mu bëgg rek mooy gis Dieynaba di sonn gis Dieynaba di bale di fobeere waaye yor liggéeyu kër gi yépp ba tax na nag bi mu ko gisee mu ñibbi si marché da ko daal di attaqué yàqu ko lu mel ni xamee ndax jàpp na ni Dieynaba dafa naajee mu mel ni kon moom mi nga xam ne moo di Marème Sall euh, mu ngi rek euh, teg ba loo xam ne lu diis lu métti la ndax nag règlement bu dëgër la euh, deful problème rek lay dëkkee waaye heureusement ba moom Dieynaba yar ak teggin la ko war te lépp nag lu Marème Sall na waaw bëgg na ko kon nag moom Marème Sall yaakaar naa bu doon la war na xam ni xale bi mu seexal bokkut ak xale yu tey ndax bu doon xale yu tey dina taxaw jàmmaarloo ak moom wax wax ak moom comme ni muy ak moom waaye defu ko respect la ko woon ndax mooy yaayu jëkkëram ñu jàll ci ma xujja moom nag woon na alkaali bu ndaw di moom daal di waxtaan ak moom euh, won ko ni ko nag papa papaam la te papa nag du nekk ci ginnaaw doom du daw di daw waaye alkaali li ko métti mooy lan moo tax papaam am problème dem ci ñeneen ñu ko koy fajal te moom doomam mu mën koo faj ba tax na nag mu daal di jéggalu daal di nag fexe rek ba juboo ak papaam ndax yaakaar naa li ñuy wax wéyjur euh, doj doj la te doom nen la bu sa kaw nga toj bu dalee ci kawam toj kon doom moo a xam boppam doom moo war xam muy yem ak ay war a xam ni ay waajuram euh, ñoom ñooy ay kilifaam kon lépp lu muy def na ko war a yëgal waaye nag du yoon doom di tong waajuram rawatina papaam ñu jàll ci nogay nogay nag moom wute na ak daam ba tax na li daam nekkee moom comprendre na ko lépp te nag bu sañoon daam di doxalee noonu ndax xam na bu baax a baax euh, bu problème amee moom moo ci euh, gën a am problème waaye daam mel na ni xalaateewul foofu ndax moom xaalis bi muy am ak changement bi am ci moom loolu rek moom moo ko yitteel waaye nogay moom nit la te nag nite na ba tax na fi ko Marème Sall di woo moom du ko fa mës a wuyu ji ndax xam na ni euh, nit waroo topp rek ci loo xam ne du dëgg ndax dëgg moo njëkk te yi dëgg moo mujj ñu jàll ci Koumbatal Koumbatal nag dafa ñëw delloo si Njaga Caam xaalis bi ki nga xam ni moo di alkaali daa fayal papaam xaalis bi loolu nag euh, Njaga Caam bi ko yëgee neex na ko ndax ku na ni dafa jàpp Koumbatal parce que ba mu ràpp yàq ko lu mel ni xeme waaye bi mu xamee ne alkaali bu ndaw moo delloo xaalis boobu dafa fier ci moom ndax jàpp na ni alkaali borom jom la ba tax na nag mu koy may ki nga xam ni moo di Juma Caam mu mel ni kon moom Juma Caam soriwul bëgg bi mu bëgg maamam dina ko dugal ci guuta ndax moom dafa bëgg maamam ba bëggul rek euh, wéet teggi ay waxam bëggul nag def lu mu bëggul ba tax na kon su moywul dina sacrifier amuram daal di sëy euh, ku ne xam na ni mbëggeel euh, sëy mbëggeel moom moo ko waralal ñu jàll ci Amina Amina nag moom dafa triste waaye dañu koy comprendre ndax doom ju nekk doo bëgg rek sa yaay ak sa papa am problème doom ju mu nekkoon itam yaakaar naa nii rek nga mun a doxale ba tax na nag Sosa mi nga xam ni nag moom ni muy réagir ak ni mu lay tontoo tey nga ñëw mu dikkee beneen kanam li nga xam ni kon forcément yaa quelque chose ba tax na kon euh, Amina euh, sosa wan na ni euh, Amina xaritam la sa xarit mooy ki nga xam ni boo amee naqar ñëw bokk koog moom waaye boo amee bànneex ñëw bokk koog moom waaye sa xarit itam dafa war a xam boo boo triste mu xam boo amee problème mu xam ndax koo yàgg di jëflanteel boo gisee kanamam lépp lu ci nekk war nga koo mën a xam ñu jàll ci Marème Sall Marème Sall nag moom jamono ji elle est ba tax na nag nanguwul sax waxtaan ak kenn saagu euh, daba caam bi ñu gis ci saagu ci oto alkaali loolu la mënta digérer ba tey ndax jàpp na ni kon ñoom ñaar dañoo nekk ci relation ba tey loolu nag métti na ko ba tax nogay mi nga xam ne dafa ñëwoon ngir woo pour euh, wuyu si baasir yàq na ko lu ni xamee daal di koy yemale ba noppi nag bañ na du wuyu ji baasir euh, ñu jàll ci moom baasin baasin nag moom def na lépp ba fexe rek ba jayna ba wax ko problème bi nga xam ni moom moo am ci kër gi waaye ba yaakaar naa def na erreur de sa vie erreur a mag ci àddunaam la def te mooy daal di wax di wax ak basin mooy li nga wax na euh, dem ci mbedd bi na ko ñëpp yëpp alors que bu yàggu rek la waxtaan ak jëkkëram ba jëkkëram tere ko ne euh, ni moo di Dieynaba su moywul dina am problème non seulement ak waa kër def leneen te nag ki waxtaanal sax dafa nekk euh, mooy le ndax ki nga xam ni moo di basin moom xanaa wax ko secret mooy nag jël sa wax daal di koy sàmm ci mbedd bi ñu jeexal ak moom Marème Sall Marème Sall nag moom gis nañ ni li ko métti métti na ko te mooy rek Daba Thiam mënu ko digérer mënu ko supporter rawatina nag mu mel ni da koo ragal ndax bu demee bay xalaat euh, doxalinam di xalaat ay waxam di xalaat ay kàddoom mu def ko ci état bi mu nekk alors que Daba Thiam moom loolu terewu ragal ne bis euh, jëkkëram takkee mu daal di koy euh, ñàkk kon mbokk internet yi foofu la ñuy ci épisode treize bu série Bété Bété ma jox leen dig daje beneen épisode waaye laataa boobu woy leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàtte bu si de notification bi